am nañu jaar-jaar yoo xam ne yu jafe la ci seeni àdduna duñ leen mos a fàtte tey nag euh, ci seen émission du cœur dañuy dalal ki nga xam ne rek mooy suñu liggéey Boubacar Seye euh, moom mi nga xam ne mooy borom Horizon Sans Frontières nekk loo xam ne rek yàgg na lool lool lool yàgg nañ ko dégg mooy liggéey ci li nga xam ne rek mooy diaspora bi euh, depuis 2006 euh, waaye nag ginnaaw ba mu liggéeyee liggéey liggéey ba mu leer ne liggéey bi tey ji ñor na mu fas yéene ko indi ci li nga xam ne rek mooy réewam waaye indi ko ci li nga xam ne rek euh, mooy continent africain bi ba tax na nag en 2013 mu daal di ñëw fii ci Sénégal pour daal di fi sanc li nga xam ne rek mooy Horizon Sans Frontières jaar jaaram li ñuy ñëw tey tey ak li nga xam ne rek mooy épisode métti boobu nga xam ne dundoon na ko muy séjour carcéral am euh, muy loo xam ne rek euh, maanaam euh, bàyyil na ko tey ji ay sëkkël yu bëree bëree bëri bëri bëri ginnaaw ni mu ko dundee ak ay ñoñam ci la ñuy ñëw tey ji ba tax na rek ñu dalal ko ci émission 7 voix du cœur ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo tonton Boubacar nuyu nañ la bu baax a baax di la ziar di la dalal sur la 7 TV ci émission bii di 7 va du cœur Sonia maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal voilà di remercier 7TV ci invitation bi voilà di nuyu waa Sénégal gi yëpp nag waaw di nuyu aussi waa diaspora bi. Mmh. Euh, buñ ñu nee tonton Boubacar Seye euh, xel bi day dem directement ci diaspora bi ci sénégalais yi nga xam ne tukki nañu woon réew mi ginnaaw am ay jafe-jafe euh, ñi nga xam ne tey jii am yegg nañu foofu. xamuñu fi ñu war a jaar xamuñu fi ñu war a teg seen tànk yow nga basé wu fële ca Espagne waaye di dem ci diaspora bi yëpp di dimbale ñi nga xam ne rek ñooy doomu réew mi euh, ba tax na tey dañ lay bàyyi rek nga expliquer ñu tuuti ci li nga xam ne rek mooy Horizon sans frontières juddoom euh, ak ni nga xam ne rek noonu nga ko installé ba bëgg a ñëw Sénégal fii euh, daal di ko fi teg ak jafe-jafe yi ñu ciy am laataa ñuy dem ci li nga xam ne mooy épisode bi waral waxtaan bi di sept voix la euh, ci li nga xam ne rek mooy sa séjour carcéral voilà xam nga man bi ma amee vingt deux ans laa génn Sénégal pour jàngi donc cest à di que man li ëpp sama dund euh, bitim réew laa ko defee lu bari fa laa ko xamee alors euh, Horizon sans frontières euh, Espagne en 2006. voilà c'est une organisation européenne euh, mbootaay xeet sax laa ko mën a tuddee parce que biñ koy samp ñun ñi suñu tour enregistré au niveau de l'Union européenne mhm. pratiquement man mii maa ci nit ku ñuul ñeneen ñëpp ay nit ñu weex lañ mm, du woon yow kese. déedéet donc biñ koy samp aussi dañoo wax immigré mooy yaa xam nit ku ñuul nga yaa xam naar nga yaa xam nit ku weex nga. maintenant pour régler les questions d'intégration parce que Europe dafa am ce qu'on appelle l'échec des politiques d'intégration intégration fu mu amul kenn mënu fa wax migration mm-hmm. intégration mooy yaatal bi nga xam ni tey war nañ ko yaatal gan ñi mooy mooy ñi ñu fekki les les autochtones yaatal bi ñu war a yaatal gan yi dans une relation constructive boo xam ne ñu ngi ko tënk su le respect et la tolérance mutuelle loolu moo am échec tey Europe moo tax boo xoolee toute l'Europe gis vers l'extrême droite ñun nag puisque foofu la ñu dëkk te nit ki fi ngam dëkk fa la dëkk ñu am fa ay njaboot loolu moo tax ñu ne duñu noppi parce que gis nga problème yi am yëpp euh, su migration tension yi am gis nga aussi même boo defee même la cartographie des crimes gis nga Europe pratiquement moom lañ ci gën a ràññee avec plus de 60 pour cent des crimes c'est des crimes xénophobes c'est des crimes politiques yooyu ñu ko indi l'échec des politiques d'intégration ñun looloo taxoon ñu samp ko alors bi ñu ko sampee nekk foofu di ci dox de façon aussi bénévole euh, ba 2005 nag bi crise migratoire bi commencé xale yi di dee ci géej gi. ci géej gi alors aussi ñu xalaat ni am nañ ci une grande part de responsabilité. parce que soo jëlee danga gis ni y a des théories comme la causalité cumulative la notion de toppandoo alors nous avons pris conscience que tey il faudra que ñu relancer waat débat bi sur la gestion des flux migratoires yi nga xam ni tey dafay poser des problématiques. de dignité humaine gis nga ces drames là il faut aussi ñu sensibiliser ñun en tant que immigré alors ci laa toogee ba si yàgg nag ma ni ah mbir mi kat du Europe il faut ñu wàcc ci terrain bi. en 2013. en man laa ñëw installer le bureau Afrique de Horizon Sans Frontières pour relancer le débat et sensibiliser sur ces drames là d'ailleurs li ñu indoon sax mooy un programme un projet que nous avons appelé en espagnol no mass mortes mooy bëggatuñu ku dee ci gis mhm. alors loolu nag mënoo toog Europe di ko fa def looloo tax ma defoon sacrifice boobu bàyyi suma njaboot bàyyi suma liggéey ñëw Afrique installer le bureau Afrique pour sensibiliser pour que les gens prennent conscience que ni lii di dee ci réew mi mën naa ñàkk ba pare mhm. erreur la mhm. bon appeler aussi à la responsabilité des États bi nga ñëwee bi nga ñëwee ndax installer ko yomb na non parce que xam nga lenn moo fi nekk Euh, man dama doon man su ma musaan ñëw Sénégal quinze jours laa fi am delluwaat. Mhm. man ci lii laa xamee sax vraiment Sénégal ak nit ñi niñ mel. Euh, ñaar nag moo fi nekk da ngay wax pour am looy wut wala nga wax pour dëkk man ci opté pour dëkk. parce que mhm. ñi ma xam xam nañ ni duma dox ci yenn yi. mais quand tu tiens le langage de la vérité pointer les responsabilité dañu lay xeex alors soo buggee nag séddoo ñu ñëpp. ñu sédd la da ngay wax ñoom ñi leen neex. puisque c'est un dossier qui pose des problématiques de dignité humaine nit ñaa ngi dee man mënuma laa wax balaa nga fi jógee di nga gis ku ma woo léegi di jooy parce que gisul ay doomam. kon xam nga dossier boobu man en tant que immigré mënuma cee caaxaan. naa nag en choisissant cette voie là tu deviens l'ennemi numéro un donc boo xoolee dañ lay jël comme contre pouvoir. gisoo même en tant que organisation man may ñëw di liggéeyal Afrique di liggéeyal Sénégal man. dañ maa waroon man bi may ñëw fi dama foogoon dañ ñuy tàccu dañ ñuy yaatal mais fii lañ ma gën a sonalee. même même pour jox la sax accord de siège comme les organisations comme les Nations oh, ñoom ñëpp dañ leen jox accord de siège. Mhm. l' état du Sénégal daf koy bloqué. parce que pour ñoom kii suñu noonu la te une organisation. ba nii nii amoo ko ba léegi nii dañ koy bloqué. <laughs> man tey maa ngi ñaan avec ñii di ñëwaat ñu yóbbu la ñu mbiri mais mhm. bailleur bi sax day ñëw. di ma laaj lan nga seex ñi parce que dañ leen di wax tout sauf Boubacar Boubacar moom nañu fexe ba mu découragé dem ñibbiwaat te may liggéeyal ma leen di liggéeyal di liggéeyal askanu Sénégal. di liggéeyal askanu Sénégal euh, dund nga maanaam euh, séjour carcéral bi comme ni nga ko waxee nii dund nga tamit li nga xam ne rek mooy xeex biñ la xeex sa voyage bi nga xam ne ci nga doon jógee pour ñëw Sénégal euh, ci liggéey bi la ba tey ci Horizon Sans Frontières. waaw xam nga damay def de temps en temps bon dafa tombé que fin d'année dafa tombe aussi sama doom bu góor di am 18 ans bon 18 ans si tubaab symbolique ça alors euh, bi ma damay faral di def 18 euh, décembre chaque 18 décembre damay joxe conférence de presse le bilan annuel bi ma paree laa jël vol dem mm-hmm. ba feet jeex nag may ñibbisi voilà bi ma ñibbisee nag le c'était le 14 janvier 2021 alors ma wàcc aéroport ñu téye ma mm-hmm. kii ma bañ ma téye nag xaw ma woon la tax ñu. naka la demee naka la demee ndax. waaw xam nga dama dans les moyens détails ci épisode. waaw xam nga dama ndem euh, si yàlla Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm dafa organiser woon benn benn séminaire de médiateurs africains ici au Sénégal man j'étais l'expert associé. Mhm. parce que man en même temps damay sur la thématique migration damay jox ay conférence ci àddina bi parce que je suis en même mhm. man la ko tegoon sama loxo alors mu tàng trop discussion yi sur l'immigration clandestine la fa ka fa représenté Union européenne ni ma monsieur Seye ñun kat dugal nañ fi lu bëri ci xaalis waaye gis nga tey la wàllu gën a aay boo ma joxee sa email bu subaa dinaa la yónnee lépp. Hmm. non seulement dafa ma ko yónnee ba pare ma ànd ak une délégation dont am na kenn si ñoom sax ñu fi nekkoon ànd ak ñun Union européenne ñu recevoir ni hmm. mais man ba ma génnee am naa droit parce que damaa bëri casquette dans la migration d'abord Horizon sans frontières est une organisation je suis citoyen européen. xaalis boobu c'est l'argent du contribuable européen suñu xaalis a ngi ci c'est-à-dire il faut que nit ñi yeewu alors je suis chercheur dans mission académique dama ci bëri casquette ma ni waa xaalis boobu ñu dugal fii mu ngi nii ma yore ko xam ñun fi dugal ñan ko jox sur des programmes te tey xale yaa ngi dee mais ñooñu mais est-ce qu'il n'est pas bon ñu def le bilan parce que quand même liggéey day am reddition des comptes liggéey boo xam ni amul bilan du mën a évoluer en efficacité buñ la joxee xaalis kay ak diir tey. war nañoo xam fan xam question boobu laa laaj. alors bi ma bi ma jógee aéroport rek ñu téye ma. Mm-hmm. au début comprendre ma woon après laa doog comprendre ci ki ma interrogé woon parce que dama gis ñu yore sama passeport di xool bon bu jaaxal bon puisque c'est un passeport européen ma naan xëy na dañu xoog ni man xëy na c'est un faux passeport que j'ai bu jaaxal ma mais ki ma téye arrêté mm-hmm, mm-hmm. parce que même commissaire bi ñu ma dugal ci téyem moom xamul di tax ñu téye ma xamul li tax mu téye ma il a que ñu dem ba parce que ay deux heures du matin laa wàcc ba ay subateel nag ñu doo nga xam parce que ki ma intéressé woon nag laa parce que dama ko joxoon sama téléphone ni ko maa ngi ñëw Dakar pour leeral lépp mm-hmm. ci sama xel ni yar ci moom ma woo ko man ni ko ma man j'ai pas compris yéen da ngeen ma téye dama wàcc aéroport ngeen te mu ne ma looy wax ni ma ko si da ma téye mu ne ma mu waat ci Serigne Babacar si mu ne ma barke Serigne Babacar si bi ñu bokk yëguma ko te ñoom yëgaluñ ma ko duñ ko wax que moom dañ ko interrogé woon rek mu mu mu ma interrogé ma et puis dañ lay topp comme si c'est un bandit le il m'appelle pour me dire que voilà dañ la kii man leen man dama ñëw Sénégal kañ nga génn Sénégal man leen man keroog laa génn Sénégal ñëw seet ci sama njaboot oui. Mhm. donc ni la demee ci lañ ma jëlee yóbbu ma euh, section de recherche voilà dafa am loo waxoon est-ce que am nga preuve man ko bien sûr man doo waxantu surtout mhm. preuve yëpp document baa ngi nii ne leen ko Union européenne moom ko jox lii lañ wax et am naa droit laajte question c'est c'est une question d'économie politique. xale mm-hmm. yaa ngi dee on a besoin de savoir. muy téye ma alors euh, même ka fa nekkoon le commandant Mbengue dafa toog ba vingt heures mu woo ma fekk na c'est le pro man pour man damay ñibbi sama kër. Mm-hmm. parce que bisuma lu ma def. mais bi ñu toogee ba vingt heures mu woo ma ci bureau mu ne ma je vois que da nga sonn euh, tu as c'est vrai que dama fanaane voyage ba pare Madrid aéroport bi dafa amoon neige. ñu tëj aéroport ban Portugal Lisbonne Lisbonne laa la laa jëlee vol te vol Portugal ñëpp xam nañ ni Lisbonne heure tap deux heures du matin la egg man huit heures laa commencé voyage yi mhm. egg si fii deux heures xam nga sonn nga mhm, ma ñëw ñu téye ma yàkkamtu moom lu dul ñibbi Sénégal rek daal di ñëw tëdd noppaliku mu ne ma bon c'est le procureur qui a demandé à ce que Serigne Bassirou Donc des gens comme ça qui se croient tout permis, comme ce nous et Sénégalais, c'est une Bassirou Gueye qui, dans son bureau, sous l'ordre du président de et du ministre la Justice, su boobaa ñëwee nañ ko téye alors mu ne ma moi je mu interrogé ma wax ko mu ne ma man je ne vois rien de pénal mais dañ ñu sant rek ñu téye la. Mm-hmm. et ci leen ma notifié sama garde à vue. garde à vue bi. muy vendredi matin ñu téye ma ba lundi. Mm-hmm. voilà. xaritam la ñoom ñaar ba ñoom fukki at ak juróom ba léegi ñi ngi ànd muy euh, monsieur Niang ñu dem xooli ko ci témoignage naka la ko dundee ak moom ndax ko àndal fukki at ak juróom ba ngeen ko amee ba léegi nii euh, lii xaaj ci yow xam na ko lii xaaj ci moom xam nga ko ngeen tuddante doom dañuy dem déglu ko léegi mu daal di koy wax ci gémmiñam léegi léegi lay doon sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. Boubacar euh, dafa nekk nit ku dëggu. ba pare ak li muy def activité da cee commencé depuis Europe avant muy ñëw Sénégal donc bi mu ñëwee mu ne day euh, Horizon sans frontières bi mu sos foofu day ñëw def benn antenne bu Sénégal bu mu ñëwee sax man la ci jiitaloon pour ma diriger antenne bi donc mu boole ay yeneen nit ñu ñu xam fii ñoo xam ne ñun ñoo defoon antité euh, boobu ñu commencé di liggéey ak moom ci activité yooyu li mu li mu doon wax yëpp ci science la ko doon teg parce que gës ci gëstu la ko doon teg parce que moom da cee xam dara ba pare da cay am xarañte ci di ci yëngatu donc bi mu amee information yu bëri donc moom lay ñëw après di échanger au niveau de la presse pour joxe yan solution le Sénégal war a mettre en place pour mën a jàppale xale yi pour ñu diminuer immigration bi et en même temps danoon wax ci affaire immigration mooy étranger yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal ak nan leen mën a jàppale yàlla dafa def nag mm, information yi mu doon joxe yi tax waa nguur gi fi jógee eh, jàpp ko moom information yi mu doon joxe fañ ko ko doon joxe man maa nga fa woon waaw donc benn réunion bu ñu defoon Union européenne waaye Union européenne joxe ay information comme quoi que y des investissements que moom après sax réunion bi ñoom danañ ko jox. liste des financement qu'ils ont eu pour que moom mu mën ci ci loolu la communiquer ci communication boobu nag la nguuru euh, bi fi jógee daal di ci sukkandiku ne dañ koy déglu jour biñ koy déglu euh, bi mu egsee aéroport la woote mais ñun danoo yaakaaroon ne comme ni mu ñu ko waxoon rek donc ñoom dañ koy déglu xëy na peut-être après danañ ko bàyyi parce que nit koo xam ne sàccul nit koo xam ne violé wul nit koo xam ne saagawul donc ay idée la wax donc si on est dans un état normal boo xam ne dëggu moo fa am lu jub donc dañ ko waroon a indil contradiction mais ñoom defuñu loolu ah, en fait dañ coo profité pour jéem ko ne en fait dañ ko doon dañ ko doon jéem a troxal parce que c'était comme c'était quelqu'un qui était contre de leur euh, seen seen politique bi ñu amoon au niveau de l'immigration luy il n'était pas d'accord et il il manifestait ça manière Euh, voilà tous les jours au niveau de la presse je pense que loolu moo leen neexul woon quoi mais bon mais ça on comprenait ak euh, instant boobu dëkk bi nu muy doxee nga xam ne y avait l'injustice quand même et on était plus ou moins dans un état qui si on avait dit que y' un état de droit mais quand même il y des manquements man bu mu nekkee prison dem nañ fa plusieurs fois Euh, parce que ñun ñoo ko doon yóbbul euh, lekk. waaw bon xam nga ak philosophie rek lañ koy jàppee donc euh, sunu mbokk la suñu frère la donc man ak ay sëram ak sama jabar donc ñoo ko doon jàppale pour voilà mu xool nan lañ ko mën a accompagner. waaw man bi ma koy gis nag xaw na yàgg moom bi mu génnee prison. ba dem ci kii bi nu mu tuddati euh, prison bi nekk ci hôpital bi ñun si la ñuy soog a njëkk a gisante mais sinon yi ñuy dem yëpp dañuy dem rek déposer bon parce que en fait pour il fallait aller chercher des autorisations pour pouvoir le le voir et c'était un peu compliqué ces temps-ci parce que temps dafa amoon Covid voilà donc c'était ça qui faisait qu'en fait c'était difficile d'aller voir les les mais bi mu demee quand même euh, ci euh, prison bi nekk ci hôpital euh, comment ça s'appelle le pavillon spécial Le Dantec donc foofu lañ ko jotee gisante quand waxtaan. waaw boobu commencé nañu détecter comme quoi comme mi ngi commencé sucre diabète bi affaire diabète bi ak affaire yooyu donc les gens étaient en train de xool la yan feebar moo nekk bon nit ko parce que nit koo xam ne quand même dund nga un certain nombre d'années soo <laughs> dem prison. war a dem prison donc ak euh, prison nu mu mel c'est pas évident du tout waaw ak lekk yeeg yooyu donc yooyu yëpp tax na ba après donc bon euh, maladie yooyu commencé génne d'ailleurs maladie yi après plusieurs mois bi mu génnee donc daf ko continuer di ko traité jërëjëf euh, lépp lépp ñu tegoon ko ci loxoom mu nekkoon porte parole famille bi ci bi nga xam ne rek mooy sa séjour carcéral euh, dund ko nag ak yow ndax ni nga ko waxee léegi leer na ngeen tuddante doom dund lu bëri bëri bëri euh, lu bëri looy def biñ ko laaj aviam moom tamit idem mhm. dégg nga ni mu ko dundee lan nga ci tontu. waaw xam nga man benn xarit la am. Mhm. parce que comme ni ma ko waxee ñun ñoo dend kër depuis ans. la ñu xamante ba tey jii nii ñu ngi ci cinquante et quelques kon moom suma lépp la moom laa xam comme xarit gisoo Sénégal jeune ne fréquente que lui pratiquement mm-hmm. sama xarit la alors euh, bon mu nekkoon lu métti ci moom c'est un homme très discret mu métti woon ko jour bi ma woowee nii dañ ko téye li mu njëkk a mooy jël avocat mm-hmm. voilà donc mu nekkoon aussi lu métti métti métti ci moom mm-hmm. waaw métti trop ci moom am na yeneen yu bëri yoo xam ni sax dund na ko ci mais xam naa du bëgg sax ma wax ko mais malheureusement euh, il a beaucoup souffert aussi avec mon emprisonnement mhm. voilà il euh, ñu bàyyi la rek yeggale ci li nga xam ne ci nga nekkoon euh, ba vendredi muy garde à bi waaw waaw ñu te ñu après le lundi matin ñu defee ñu voilà devant le procureur là mm -hmm. aussi d'autres souffrances xam nga loo xamul xamuloo ko mhm. xam nga boo tax euh, Sénégalais yi mhm. euh, fi nga xam ne rek euh, mooy ci garde à vue ba. dem mhm. ci déferment. déferment ndax mën nga ñu ñëwal ci épisode boobu naka la demee woon en tant que koo xam ne yaa ngi doon xaar maanaam liggéeyal nga. sa réew ci li nga xam ne rek au niveau international. nga ne li may liggéey du yem fii. Mhm. xaama ñëw indi ko sama réew. nekk ci activité yu yegg si war a dem sa kër. jubali fi nga xam ne rek. mooy prison waaw waaw waaw un grand choc parce que. loo musul xalaat ci sama àddina. biñ la waxee dañ lay defee rek naka nga ko dundee. ah waaw nañu def mais man biñ ma yóbboo ba niñ ma yóbboo sax pour ñoom pour man dañ may bàyyi parce que gisuma lu ma def. Mm-hmm. mais boo gisee aussi l'évolution des choses nga xam ni kii ci kaw lañ ko complot woon. Mm-hmm. il faut ñu téye ko parce que il faut mu noppi. donc c'était benn tentative de musulman pour nga noppi. à la limite même tentative d'assassinat parce que en réalité je suis sorti avec des séquelles dinaa ci dellu siwaat bi ñu yóbboo xam nga rek il faut nit ñu comprendre à travers cette émission lan mooy euh, li ma wax léegi nu mu tuuti euh, yóbbu la ci kaab ba mhm. voilà déferment xaw ma. Mhm. la ak ñu ne dugal ci ay kaaf. am na ñun ñoo ay kaaf yu ñu tëj. Mhm. nga ekk fa ñoo xam ni sax dañu lay brutaliser. ñu leen neex ñu traité nit ñi quoi moi je suis pas un brigand. dañu lay tëj nga war a lekk da wut moom mii monsieur Niang wala ñeneen ñu jëm jënd lekk di ma ko indil ñu téye ñu foofu ba heure bu la neexee ñu ne ñu ne xaw ma lan am na benn expression bu ñuy kii nga dem fanaani centrale voilà retour de parquet. nga dem fanaan central ñu dugal la ci benn foo xam ni grille yaa ngi nii ci suuf ngeen di tëdd foofu ngeen di toog ba suba teel ñu yóbbuwaat leen. devant le procureur ñu dem euh, vers euh, da nga fay yendu ñu tëjaat la encore ba 16 heures la notification génn tout était préparé mandat de dépôt mandat de dépôt mooy prison nga jëm. bu ñu la nee mandat de dépôt tonton euh, lan nga yëg. waaw bàyyi famille. waaw li ci gënoon metti li ci gënoon metti mooy suma njaboot. Mhm. xam nga man dama bugg doom. man chaque minute ma wootee samay doom parce que dama am doom bu jigéen boo xam ni daf ma takk mhm. gisoo dafa mel ni daf ko sentiroon mhm. bi ñuy ñëw dama def sama test covid résultat bi di génn mu ne ma papa man bëgg ma dama bëgg nga positif ma ne ko mais su ma positifee dama dama lay wàll parce que yow da ñëw di tëdd sama kaw di ma fon mu ne ma nangu c'est pas un problème mais su nga bañ a dem waaw bëgg ma nga dem <laughs> parce que man su may ñibbi Sénégal toujours day metti mhm. du ma dem elle comprend pas pourquoi sama papa di dem donc ay jooy laag lu kenn xamul ba ñuy dem donc mu mel ni daf ko sentir. kon bi ñu la jàppee sax xel ñëwaat na ci loolu. non man man j'ai pas souffert. cest à man sama souffrance. c'est vrai prison metti na. Mhm. mais koo xam ne su egsee Sénégal man su ma egsee ci avion bi sax ba ñu wàcc vu différents horaires maa ngi yàkkamti nekk parce que sama waa dañu tëdd pour wax leen li. egg na naa naka sama doom bi comment il a réagi anam souvent dañ ma naan tii daf lay sonn rek tëdd na wala lu kenn xam parce que damay sonn bu may ñibbisi léegi nag vous imaginez ñoom ñu war a toog dégguñu suñu papa jël samay téléphone dañ koy jël deux ou trois jours suñu papa dafa dem seen dëkk déggatuñ ko man nag loolu moom ma doon souffrir loolu ba pare bon prison prison rek la mën a nekk gis nga bi ñu def les mandats de dépôt je me rappelle maître Moussa Sarr maa ngi Euh, j'avais sept avocats maître Cheikh Tidiane Dabo maître euh, Amadou Ali Kane ak yeneen avocat ku nekk daal ku ma xam rek indi nga nit voilà maître Alsane Dali Ndiaye Ibrahima nii moo ko jëloon buggaan yónnee ndeysaan avocat alors bi ma ñëwee maître mu ne ma bu la waxee summeekul rek bu ko jëlee comme une humiliation j'ai pas mm-hmm. compris bi ñu yóbboo ba dañ ñuy dugal ci prison bi euh, ci ay box ngay taxaw ñu ne nañ summeeku daf yaram nekk boobu ñu waaw moom mu ngi ma doon wax loolu. <laughs> mu ngi la doon bon bi mu nee nañu summeeku may summeeku mais gis nga yàlla lu muy def am kenn ci ñoom mu ne ma yow bul summeeku toi il faut hmm. ku baax am na fu nekk. Hmm. man dafuma luñ may toroxalee Sénégal ñëpp dañoo summeeku soog man bi ñu ñëwee itam bay dugg mu ne ma yow toogal mais lan xew on a suivi qu'est-ce passe ma ne ko ah je n'ai rien mu ne ma fii de doo fi sonn. waa Cap Manuel moo tax ñooñu mujj sax samay xarit lañ nekk. bu ñu paree bu ñu dugal ñëpp ñu ma chambre benn chambre bu nekk chambre VIP moom noonu lañ koy tuddee. Mhm. bon loo xamul xamul lañ ko moi ce que je. VIP entre guillemets. voilà c'est ça donc boo donc imaginer ñeneen chambre yi ni ñu mel. on était quatre là-bas. ndeysaan bi ma ñëwee tamit ñu teg ma ci kaw. Mhm. parce que ñoom ñëpp ñu ngi suivre sama cas. benn lal bu mag moo fa nekk ñetti fi benn bu mel nii ñu teg fa mat la ñu ne ma yow tëddal fii. je me rappelle ndeysaan Alioune Badara Cissé daf ma doon wax ni premier jour guddi gi dina metti mais tien boo mais guddi googu yëguma ko. <laughs> bi ma duggee nag dama jooy. Ah, ah parce que j'avais pas imaginé cela ma fekk fa koo xam ni sëriñ la naka te wàlluwu la moom nee na leen woon sax dafa am kuy ñëw mais ñëwgul bi ma duggee rek mu ne ma yow loo jooy yow àddina bi di wax ci yow yow xam nga sa bopp yow yàlla daf lay yëkkati. Mm-hmm. non xaw ma ko j'avais pas compris. te mosoo ko xam mosuma ko xam jour bi may génn sax daf ko wax pour wax la ni yàlla lu mu def rek noonu la léegi bi ma mu nekk nag di waxtaan ba suba teel ma yow suba teel jour bi yëpp di wax ci man ndeysaan mu ñëw mu ne ma gis nga xoolal maa ngi dem di téléphone yi sama jabar ni ko Boubacar de ñoo bokk nekk sama jabar léegi au faale wu ma sax yow lay laaj nuyu ma Boubacar mu ne ma yaay kan mm-hmm. mu nekk guddi koo xam ni tamit yëguma ko mm-hmm. mais prison prison la parce que vous imaginez ñu ngi entassé ñeenti personnes yu xamantewul mm-hmm. euh, ci benn pokkus bu ndaw toilette di man xaw ma loolu damay bu nit buggee ci toilette di sax damay wàccu xaw ma woon ni li am na ci àddina le fait qu'on enferme donc mu nekkoon métti bu hygiène qu'il faut kaas sax soo ko tegee soo yeewoo boo ñëwee kaas bi yëpp dañ ciy fekk ay ay boobu ñu ne aussi duñu duñu indi lekk ñu ñëpp ñu indil ma lekk ñu delloo lekk yi ñu ne lekk lekk prison man lekk man ku ma man bu may ñëw Sénégal damay indi sumay lekk mm-hmm. man tamit lii du ko lekk parce que premier jour bi ma ko lekkee dama wàccu man ni du ma ko lekk donc je suis resté des jours là-bas du ma lekk mu am xale bu baax aussi bu bu tudd Saliou Ndoye am profite parce que kooku ñu war a bàyyi la il est d'une intelligence raffinée moom tamit ndeysaan moo may defal lépp su ma yëw mooy lal sama lal moo may defal lépp yéen bokkoon kii ñu bokk néeg bi mhm. c'était un directeur de poste laa xaw ma lu xew rek ñu jiñ ko dara ndeysaan dugal ko fa ba léegi ma nga fa oh. et j'interpelle l'état du Sénégal parce que kooku foofu Euh, bu yeewoo daf leen ni monsieur Seye du nelaw day onk rek fekk na du lekk alors euh, day dem jënd si bitig bi couscous marocain mu daf ci suukar daf ci sunguf meew ak ndox bu tànn bu sëcc man loolu laay lekk tous les nag moo déclenché oh, une crise cardiaque man bi may dem ñoom bi ñu may évacuer j'ai développé une crise cardiaque tax dañ may yóbbu pavillon spécial bi ñu demee ñu woo bio 24 parce que dafa am lu ñu gis fii le sucre déjà le taux de sucre moom dépassé na ay trois quelque mais li ñu gis si xool bi lañ comprendre hmm. ñu ñu indi benn équipe kooku ñëw jël prélèvement dem ñu toog di xaar résultat laata ñu pour xuusaat ci loolu euh, lépp di ay jaar-jaar yoo xam ne rek dund na ko euh, mu metti loolu dañuy dem seetaan ay témoignages ay ñoñam daal di soit léegi ci waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix xam nga nit ki sax soo koy soo ko soo ko soo koy téye sax di nga ko jox convocation wala leneen mais joxoo ko juste dafa demande une question nga jële ko arrêté ko ci loo xam ne vraiment du dëgg du yoon ba pare mu jëlee fa ay vraiment ay feebar yoo xam ne wax dëgg yàlla loolu yëpp mënoon na ñàkk ci koo xam ni day xeexal pour dëkkam. parce que tey ku xool affaire immigration clandestin yi ba léegi ba ba léegi jóge ko fi mu nekk nit ku nit koo xam ne nag fii ba suuf ba ci doon wax du jeex parce que lim ci xam moo bëri kon ku mel ni Boubacar Seye tey dañ ko war a téye toog ak moom wax ak moom lan mooy solution bi wax ko wax xam-xam-xamam waaw mais nag nit la boo xam ne comme li ma leen wax rek nit la nit bu dëggu nit bu neex a defal nit boo xam ne lu mu la wax ci àdduna dëgg la man looloo tax man ma bëggal ko sama bopp yàlla waaw ku dëggu la lu mu la wax rek dëgg la lu mu la lu la lu nekkul ci moom lu mu la wax rek dëgg la moo tax man dama koy dam dama koy xool des fois ba si yàlla xam na ka dama koy ñettal sax man de mooy am conseil mooy conseil mooy que comme moom domaine bii la nga xam ne moom la maîtriser ñu woo ko toog ak moom waxtaan ak moom ñu xool lan mooy lan mooy solution bi quoi définitive pour ñu régler problème mu xale yi. jërëjëf euh, muy lu metti di leen wax ni rek ba tey tonton Boubacar Seye borom horizon sans frontières euh, mooy li nga wax rek ñu jëlee la fi nga xam ne mooy Cap Manuel yóbbu la pavillon spécial boobu fekk na nga jot sa famille. bon sama famille nu ma leen jotee euh, parce que li ma nekk prison bi comme ni ma ko waxee ak lu muy metti metti man samay doom rek laay xalaat. Mhm. parce que d'abord ku góor ki. mu ngi doon c'était sa première année universitaire il avait venait d'avoir 18 ans mu am ay examen bi may dem mu ngi préparé ay examen léegi su ñu ko nee sa papa dafa dem seen ko da koy traumatisé le mal que Macky Sall moom ma taxee rek déjà suñ ko nee sa papa dañ ko tëj prison moom mooy yaay ji amati dootul amati jàmm te bu boobaa Espagne dina yëngu parce que seen yaay ku yàlla may ndombal tànk la mm-hmm. bu naree gis ses enfants traumatisés ba pare ñu jël formation. dana yëngal. moom na ko. non non waaw léegi ci loolu laay ñëw léegi dafa am suma benn xarit yàlla na ko yàlla yërëm Tamsir Ousmane Ba moo doon le directeur administratif et moom Italie la nekk di liggéey ak man moom moom moo bind Ibrahima nii sama xarit bi nii ñu ma mon fils Ibrahima kat yëg na ko nee na lan moo xew ma téléphone ñu ne ma ah sa waa yëg nañ ko. Hmm? léegi ma ni daf leen nànk non sa waa kër laaj. léegi ma gis gàtt yi dañu baax dama bëgg a woote man dañ ma defal foofu spécial mention spéciale c'est-à-dire que sonn benn yoon alors ñu dugalal ma xaalis ma woo seen wàkkat bi ma leen woowee dama leen nii ah ça va def waaw dafa am fu ma nekk amu réseau dama nekk ci àll bi di liggéey aw ma réseau mais su ma ñibbisee rek dinaa leen woo ñu ne ma buuba on est au courant de tout fekk fekk na la presse en parle. au niveau international tout en parle. France 24 les Espagnols yëpp yëg nañ ko àddina bi yëpp yi wax ñu ne ma non écoute on au courant qu'est-ce qui se passe. tu es bien ma ni leen aw ma benn problème parce que man xam naa sama waa kër bëgguma leen indil yenn traumatisme. moi je suis bien yéen laay xalaat. Anel Ibrahima mu ne ma mu ngi nii yëg na ko yaa ni ni mu ngi nii. amee ku jigéen ki elle s'appelle Maria Gloria ñu ma yëpp ko ma ko bu leen ko wax dafa dem entraîner parce que su wàccee day def natation simple ma ne ko bu leen ko wax waxal Ibrahima mu jox ma ko man ne ko je suis très bien bu leen am dara loo leen di xalaat y a des gens qui sa en train de s'activer léegi mu génn pour dalal seen xel seen yaay ni ma qu'est-ce qu'on peut faire ma ne ko dara parce que bëgguma ko indil préoccupation parce que ñoom aussi comprendre ñu ñun suñu papa booba dafa bàyyi lépp dem di xeex loo xam ni tubaab mënul comprendre loolu mhm. man la may def nii sax dama jàpp ni xëy na mission benn sëriñ wax na ma ko nee na ma mission la yàlla jox la mënoo ci dara parce que comme ni ma ko waxee gagné ma ci xaalis ay problème laa ci jël mhm. a laa jël fii ku mhm. góor ki est du ko traumatiser c'était ça ma souffrance c'était man ci loolu laa laa laa gënoon a loolu moo gënoon a métti. Mhm. sama sama bon mag la woon aussi bon. sama papa benn góor waaw yëpp nañ ko ñoom ñëpp yooyu. j'aurais pu mu ñëw sax mais comme bëgguma ko woon def yooyu yëpp c'est de mauvais souvenirs mhm. daal dafa tàng. Mhm. donc euh, xam nga rek euh, mu nekk métti daal man ci loolu laa doon c'est-à-dire li ma gënoon métti euh, c'est vrai. le la prison baaxul mais quand même samay doom. surtout sama doomu jigéen bi. fi mu ba ñu may wax ak nii sama doomu jigéen un jour nee na ma yow bu may dem ndax ma naan boo demat Sénégal nag li nga def keroog bu ko defati dem rek kenn déggatu la <laughs> mais du wax dara dañuy noppi rek. yaay ñu ma bu leen ko wax dara. je sais pas mu nekk lu metti mhm. waaw des souffrances sur france alors bi nga euh, bi nga demee fële pavillon euh, spécial ñu euh, gis problème cardiaque. non bi ñu bi ñu defee prélèvement bi ñu dem parce que ñoom aussi jaaxle nañu tout de coup dañ ma yóbbu foo xam ne j'ai vu beaucoup de médecins xaw ay lan la ñu wër ma alors que il y il paraît que dafa doon il y avait quelque chose ci cœur bi ñu doon ragal crise cardiaque la mais bi bi ñu woowee waa Bioved4 waa ji ñëw daf plaidé na daal di dem ñu toog di ko xaar une heure de temps après mu ne du loolu léegi ñoom seen xel dal ñu au moins du crise cardiaque léegi en chambre di jéem a euh, régulariser le taux de sucre léegi bi ñu xëyee nag lañ ma yóbbuwaat. Euh, léegi man c'est sucre ba la man am naa taux de sucre bu normal. bi mm-hmm. ko déclenché xam naa bon plein de mm-hmm. léegi nag bi ñu xëyee suba teel léegi ñoom tam bëgg nañ xam xol bi li ci nekk lal la. ci lañ ma yóbboo benn hôpital bon comme man xaw ma hôpital sénégalais yi xaw ma parce que man dama comme ni ma ko waxee dama teel a génn Sénégal. Mm-hmm. mais li ci gën a metti comme un dañ lay boole gendarme c'est-à-dire que mën nga yóbbu hôpital mais boo gisee di nga xam ne kii prisonnier la parce que day am policier bu la bu la bu la bu ànd ak yow mais yooyu te lépp du kenn moo ma ci sonal dañ may sax dox dañuy sax écarté yu mais dañ lañ ko sant voilà donc euh, autant de souffrance de traumatisme yoo xam ni prison bi indi ko ba tey des parce que comme ni ko ñëpp waxee je suis élargi avec un taux de sucre élevé donc le diabète. musuma ko am. donc tey gisoo bu ma njëkkee dellu Espagne sax gisoo bu ma génnee prison sax dama dem clinique. j'en profite. mais mais laata après ci ci prélèvement yeeg yooyu li ñu gisoon ci euh, xol bi après lan la. ñoom après bi ñu defee analyse ñu ne le cœur est normal. cest à mhm. pas une crise cardiaque foofu ci lu bëri mere parce que ci la Alioune Tine mere ci la Seydou Gassama mere interpellé Macky Sall ñu ko dara jot ko es responsable. maintenant là aussi non seulement au niveau du Sénégal les gens ne pas contents. mais au international aussi aussi. Mhm. les il ni mhm. euh, ko nag lu ko dal yow la parce que dara jot ko fi. léegi ba ma génnee nag gisoo clinique sax laa jubal may profité sax buggaan ma koy remercier parce que dama génn moom moom moo ma hospitalisé cardio clinique cardio def naa fa une semaine ñu xoolaat yëpp privilégié ma doog a ñibbi si fii ci kër gi après quelque temps bon c'est vrai j'aurais pu repartir en Europe parce que man euh, comme ni ko waxee ban euh, awma sécurité sociale en Afrique donc man Europe du ma fay parce que non seulement sama sécurité sociale mu ngi fii fii mais su du jubali hôpital vous imaginez mes enfants en pleine année scolaire suñu papa dafa demoon seen dëkk ñu tëj ko foofu mu ngi nii feebar mu ngi hôpital. dañuy ragal Afrique voilà dañuy après. Mm-hmm. gis nga non man sama doom su jigéen su xamoon ni man lii dal na du bëgg mu ñëwaat fii. maa mm-hmm. ma fii jusqu'à présent. moom xamul lan moo ma dal dañ ko ko nëbb ba léegi xaw ma nag kañ la koy xam ak su ko xamee kañ lay réagir mm-hmm. bon elle va avoir 18 ans maintenant elle grandit le 9 mai incha allah mais ba léegi yëgu ko. donc vous. Euh, tonton Boubacar euh, ñu demaat ci ay témoignages euh, dem xooli benn témoignage del soit léegi damay sax dem ci ki nga xam ne rek mooy suñu papa Ibrahima Dramé moom nga xam ne rek xam nañ ko ci li nga xam ne rek mooy xeex dëgg ñu dem xool ko ci témoignage ndax bokk na ci ñi nga xam ne yëf yi affecté nañ ko lool lool lool biñ la tey ñu dem xool ko léegi léegi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. ndax Boubacar ñu ko xam ci yar. xam ko ci mbaax xam ko ci jub ah jugee na fii tukki li ko tax a jóg mooy immigré yi nekk bitim réew ak ci réew mi ndax comité européen dafa am ay somme yu daan yónnee mu war a dem ci immigré yi wara dem ci ñi néew doole moom nag ba mu yurndoo xam ne lii am na ñàkkul am na tag-tag yu ci am mu métti ko mu nekk ci ne di gëstu ndax ñi doon joxe seen yëf ndax fañ ko doon joxe àgg na fa wala àggu fa nguur gi fi nekkoon nag dafa mel ni dañ ko jëlaloon en ci loolu ndax tukki tukki mi la tax a dem Sénégal moo la tax a dem Sénégal moo la tax di yëngu ngay doomu sénégalais ñu yaakaar ne dañ la war a soutenir dimbali la ci la ngay def wala boog bu ñu la mënti dimbali bàyyi la ak sa bopp mu dem tukki ñëw ñu tukki méttee nga gëj sa kër nga gëj say mbokk wàcc aéroport guddi ñu jàppale yóbbu ci kaso. ni ma ko yëgee mooy dama toog rek euh, sama benn doom ñëw ne ma ma de dama dégg ne boobu Boubacar Seye dañ ko arrêté ma ne ko déet mu ne ma kay dafa wàcc aéroport guddi def naa ne ñu jël ko noonu rek yóbbu ci kaso bi. mbir mi sokke ma lool keroog daf ma fekk maa ngi lekk mais damaa soppi seppi sama loxo am na xar ndax kat nit su baaxee ñëpp ko bokk waaye su bonee moom kenn la Babacar nag dafa baax ci ñëpp moo tax ñëpp bëgg ko bëgg ko ci njub xam nañ ne itam ci dëgg la nekk waaye nag jamono bi nguur gi fi nekkoon defe naa dañuy bañ ko jub kaso bi eh, benn mbir daf ci am xanaa yàlla ko musal sax waaye mënoon na am cardiaque te est-ce que sax amu ko ndax wàcc aéroport ñu leen tiim jàpp yóbbu boo ko am cardiaque sax foofu lay yem mm. waaye ndax moom xamul kaso ndax mosu fa dem ndax ci nit ñu ñëw lañ leen lañ ko boole waaye bañ ko yóbboo ci kaso ba la ko fa jot a daal sax loolu moom a gën a sokke ndax koo xam ne dara jotu la woon amoo woon jabet amoo woon benn feebar bu ñu mën a wax ni bii identifié nañ ko ci yow waaye lépp loo xam ne dal na ko fi mu ko jëlee ci kaso ba xanaa ku feebar kay nga tëj ko ci kaso kay yëg ne dafa am jabet xanaa di nga ko bàyyi mu ñibbi këram waaye ñu continue di ko fitnaal xanaa ñoom sax xanaa dee lañ ci bëggoon xanaa yàlla nanguwul te tama yaakaar nag ne ah ci Sénégal ni ma xamee woon Sénégal nitu sénégalais dama yaakaar ne ñu bees ñi fi nekk nguur gi xam naa ni ma ko xamee lañ xamee loolu waaye te mu ngi débori ay ordonnance di nu mu def ba dund ordonnance yu dul jeex xam nga ne jabet moom dafa am spécialement matière boo xam ne moom nga war a lekk te Babacar amul mooy yooyu ko ko teg mooy nguur gi fi nekkoon ñoo ko teg coono yooyu injustice métti nañu trop man dama ciy wax léeg-léeg Sénégal problème mooy injustice il faut ñu teg mbir mi ci dëgg teg mbir mi ci yoon te ñi nga xam ne ñoo sonnoon démb te yàlla tax ñu sonnoon démb ngir réew mi ñu bañ leen a fatte parce que bañ leen a fàtte mooy tax Sénégal jaat ci yoon. jërëjëf euh, kon nag euh, muy euh, koo xam ne rek kilifa la ci réew mi boo xam ne wàllu dëgg rek moo ko ñor ba tax na rek ma bàyyi la nga àddu ci li nga xam ne wax na ko ak naka la ko dundee. bon xam nga yàlla mooy def nga gis nit rek bëggal ko sa bopp. man góor gi mënuma ko fay. Serigne Ibrahima Dramé Sénégal gi yoroon ko njukkeel. Mhm. la. man sama emprisonnement daf ko ni ñu ko def sax xëy na waxul lépp mais gis nga euh, comme le hasard n'existe pas gis nga moom mi ñu xamante moom jàpp nañ ma muy dund lu metti nee na ma dama doon yore sama course di la ñaanal ba sama rongoñ di tuur dama doon fanaane ñaan xamoon na la avant xëy na moom waxu waxu la sax loolu xamoon na la avant waxu la sax loolu moom paa bi fa la ma jëlee daf ma comme doomam comme jarbaatam comme léppam gisoo daf ko jaral sax mu ñëw déplacé wu fii moom noonu la mel ci man c'est-à-dire que ci man looloo ko indi daf ma daf ma dafa jikki dayo parce que nitu dëgg la xamul caaxaan daf ma bëggal boppam loolu nag man mu ma ko fa yàlla moo ko mën a fay bëgg te yàlla tax il a beaucoup souffert man sama emprisonnement gisoo suñu wax sax day mer day su koy fàttaliku sax su souvent daf may woo ñi ma yow mérité nga lu nekk ci dëkk bi il faut que nit ñi xam day wax wax ko def naan fap baax na ñi nga ñaan lépp yàlla nangu na damay woo di ma ñaana rek lu mu wax rek man ko yàlla nangu na lépp mm-hmm. dafa jotaku rek moom noonu la mel dañ koy ñaanal gudd fan mm-hmm. ak wér mm-hmm. mais moom mii nii ci ñu war a gën a bàyyi xel Sénégal ci la bokk parce que mag ñu téye Sénégal moom mii ci la bokk parce que bi mu méttee dëgg ci dëkk bi moom da nga ko doon déglu mu jóg di wax. <laughs> Euh, tonton Boubacar euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy fan yi nga fa def ba bi ñu la yóbboo pavillon spécial nga dellu siwaat ci li nga xam ne rek mooy biir Cap Manuel lan ak lan nga fa dundaat su loo xam ne mën nañ ko xam. waaw xam nga man en ci biir prison bi c'est-à-dire que man j'avais dañ dañ ma ñi fa nekkoon dañ ma bëggaloon seen bopp. donc sonn ma gisoo même bu ñu yeewoo suba teel sax nit ñi dañuy génn garde yi suñu ñëwee dañuy rappel man suñu ñëwee ci man sax dañ ma naan toogal c'est-à-dire que c'était un traitement spécial je euh, gis nga directrice bi euh, dama xëy benn jour bind ko lettre ma ni ko man dama xiif dama bëgg a lekk mais permettez-moi au moins d'acheter des fruits comme la ngeen lekk man comprendre ma aussi ñu ne lekk dina dugg samedi ak dimanche yeneen jours yi du dugg lu mauvaise de traitement inhumain bi Macky Sall di teg ko fenn man ko léegi may ma ma jënd ay firi ndeysaan mu woo ma tëj biroom la directrice la mu ne ma man lii mooy sama añ bëgg nga ko man man ba ma ba ma gëjee lekk lekk bu baax mooy ba ma jógee mm. Espagne mm-hmm. ndeysaan li mu waroon añee mu tàngal ko ci micro woo benn carte ñu ñu demal yóbbul ko Boubacar Seye chambre tel ñu toog ba saab mu jëlaat xaalisam dem leen jëndal ko furi ngeen yóbbul ko ko mu ne ma man damaa tiit mu ne ma man télévision bi ma capté yow laay dégg ñuy wax te man duma seetaan télé ba pare sama sama mag ndakate sa xarit la le commissaire Astou Ndiaye chaque jour daf may woote saa ma xëy fii téléphone day woote nit ñi ñooy woote ana Boubacar Mba mu ngi si jàmm ma tiit ma dem toog ci néeg bi xam nga dans les toilettes là chaise turque moo fa nekk man mënuma cee toog mu ñëw indi maçon pour ñu defaral ma chaise anglaise jour laa génn moo tax même Serigne ma fekk ma yow da nga ñoo gën c'est la première fois qu'on traite comme ça un prisonnier cest à ma fa euh, traitement bu may la man man. sànq maa ngi lay dégg ngay wax ci yenn traitement yi ñu lay traité ak ñenn fekk loolu naka la demee. c'est-à-dire. ndax dafa am leen loo fa jot dund loo xam ne maanaam ñoo fa fekk prison boo fa duggee. non fekk la gis nga prison. li ñuy wax xëy na yàlla daf lay yàlla lu mu daf rek am na li tax mooy dëgg man ci biir prison bi dama fa fekk ay nit yàlla. am na ci kenn koo xam ni bi ma ñëwee dafa ni woon kii laay xaar. mooy ki ngay wax ne dafa wax même jour bi ngay génn. même jour dama doon toog ba si àgg mu woo ma ni ma yow yëpp nga bëgg. man bu waxee mu ne ma man damaa gis nag moom sëriñ privé am bëri na ay sëriñ bu récréation jotee ñu bëri dañuy ñëw di ko ñaan ay affaire muy wax moom bu génn day toog rek su waxee mu ne ma yow man maa la bëggal sama bopp jour bi may génn wala ba mu avant may génn sax nee na ma lii xew benn jour toog na mu ne ma yow nan nga tudd ma koo ko mu ne ma ñaata at nga am ma ni maa ngi ci tel mu wax moom day tëdd rek mu yeewu tuuti mu ne ma jógal ma jóg mu ne ma yow lan nga bëgg ma ne ko ah mais man horizon sans frontière bi may dox rek laa bëgg yàlla dimbali ma ci ma am ci doole di ko dox mu ne ma loolu rek nga bëgg ma ne ko waaw mu wax ma yoo xam ne man mënewu ma koo wax fii te soo génnee di nga ci gis wallaahi azim lépp moom moom daal dafa yéeme mu ne ma boo génnee àddina bi yëpp dañ ci xol àddina bi yëpp ñëw ci man te ni mu ko waxee noonu lay demee politique sax su amee gis nga candidat yi candidat candidat yi ñu nga toogee nii ku nekk ku nekk ñu wër jàppale ñu jàppale ñu mu ne ma àddina mooy ñëw ci yow yàlla daf lay yëkkati yow de lu ma mosaan toll daf ma naan yow léegi nga dem yow da nga fay jaar rek xam nga ku nekk prison nga naan ko da nga fay jaar rek ma ne ko waa ah, man kañ laa fi génn mu ne ma dañ lay def effectivement jour ba may génn dañoo toog ba ay 17 heures mu ne ma mu ne man de waxuñ ma woon lii tey moom Babacar la may woowee mm-hmm. te te daf ma naan soo génnee bu ñu fàtte ñu ne ko luñ la waxoon mu ne Babacar bu fanaan fii tey. te boobu ñi ci biti communiqué wuñ la lenn ko ñu ngi ci ay démarches yoo ah, xam maanaam léegi nga génn man tëdd naa sama sama lal mu ne ah après mu toog ba saa mu ne ah ah xëy na maa déglu liñ ma wax ñi ko xam nee nañu moitié nit la moitié jinne la te dafa am ñetti jabaru jinne dañ koy wax loo te lu mu la wax jàng téere te léegi nag man balaa may doon xam paa bi bi ñu ma yóbboo pavillon xam man ka ma nekkaloon mais bi ñu rek garde bi daal di ñëw ubbi Boubacar Seye ma ma jógal mu ah, mu ne nii mënoon demee. te nga a génn ma yóbbu ma pavillon spécial ma ñëw pavillon spécial moo tane pavillon spécial néeg la seen toilette ñetti nit la et ma fekk fa beneen sëriñ encore mais xaw ma ko maa ngi doog a egsi mu am benn gosse bu nekk ci prison bi moom dafa demoon émigration clandestine ñu jiñ ko terrorisme yóbbu ko foofu mu feebar quatre ans nag mu ngi mu ngi mu spécial daa feebar hmm. mais gis nga yàlla def quatre ans ma nga fa ñu téye man dama génne te xale bi man damaa koy génne ci prison bi mooy defar sama lal moo may defaral lépp ba garde bi sax ñëw nee na kii nee na yow yaa ko fi génne yow nan mën a génne te mais xoolal booy man maa wax ba mu génn damay def su ma génnee lu mu fu ma def rek man kii foofu du place am xale la. ñaata la am. Mamadou waa waa waa Casamance woon xaw ma Medina Yoro Fula xaw côté yooyu. Euh, xam naa ne suñu ah, bi ay ay vingt-sept ans trente ans ñoom ah, xale bu ndaw. mu feebar fa nag day dañuy génn xamul. mais gis nga xoolal damaa toog benn jour rek ay mbokk yi mu woo ni ma man de maa ngi nii génn mbokk di ma laaj yow lan nga bëgg man leen man defuma dara man maa doon def émission bu ma dem rek ñu foofu du place ba ma ñëwee. moom mu ni sëriñ bi sëriñ bi woo ko ni ko ni ko ni ko sa waaju moom dafay triste rek mais moom xamul ne moom moo tax fusion dafa yéem c'est important mhm. man xëy ni dafa am lu ma fa yàlla doon won euh, mu ne ko kii dafay dem dafa am lu ma gént dem ci moom bu dee dëgg la mission lay dox dafay dem kii du fi toogaat dama tax damaa yeew rek mu ne ma sëñ Boubacar moom sax moom tamit ndeysaan gaañu na parce que dafa feewaroon dem Turquie ndeysaan mhm. après nag fa la mujjee gaañu euh, bi ma bi ma bi ma mu ne ma am na numéro Dakar ma ne ko waaw mu ne ma jox ma ko li ma gént si yow bu dee bu dee li ñuy wax dëgg la yow fii soo fi fanaan tey ñetti fan ma xam ne kon du dëgg mm-hmm. ma wax sañ ma ko wax ci émission bi mm-hmm. euh, ma jox ko sama numéro mu ne ma ñetti fan fii mënatoo ko fee fanaan te effectivement matul ñetti fan moo tax bi ma ko nee damaa tase ak sëriñ bi ci prison mu ne ma kooku foo ko xamee ma ne ko ci prison ba Cap Manuel lañ xamante mu ne ma ana mu mu ne ma ma nga fa mu ne ma lu mu la wax ma waxoo mu ne ma kooku ñun dañ doon wër taal suñu oto di ko wëri Gambie lu mu la wax du daj kon nii la mën demee donc pour wax la ni ay sant yàlla la mm-hmm. ay xéewal lu lu lu mënoon lu waroon am la lu waroon am la lu waroon am la. Euh, tey euh, dañu laataa ñu ñëw ci loolu sax balaa ñuy tàggatoog yow ci euh, dañuy dem ci dernier témoignage bi daal di koy xool léegi léegi daal dellu soit ci émission bi 7 voix du cœur sur la 7TV. nit la koo xam ni il pouvait servir waa Sénégal dans son expertise ku ci am xarañ la ku ci am xam-xam la tey soxla nañ ko. Mhm. waaw soxla nañu li mu xam parce qu'on est confronté à ce problème sur l'immigration li ci yokk mooy man mi wax yow je vis à l'extérieur émigré la maa ngi vivre Italie teyit moom daf nuy dimbali ci lu bëri ci wàllu xam-xamam donc j'aimerais bien que fii ci réew mi euh, ñu dolli ko déglu pour mën a jariñoo xam-xamam waaw parce que soxal nañu te système bi fi jaar dafa échoué ci lu bëri ci ñàkk ko déglu loolu sax moo waraloon ñu jël ko yóbbu ko kaso parce que jàppale sa réew participer à la construction d'une nation jarul ñu jël la dugal la kaso buñ ko déglu woon ba muy wax yaakaar naa ni problème yu bëri perte humaine yi ñu am ci ginnaaw bi mën nañ ko éviter parce que am na xam-xam bi am na expertise bu tax mu war leen a mën a jariñ ba buñ ci jaaree mën a éviter dégâts yu bëri yu jar ci population bi monsieur Seye il a un positif ci wàllu émigration ak immigration daf ci am xam-xam daf ci am consul consulence boo xam ni vraiment il est temps que ñu nu jiite bàyyi ko xel bàyyi ko nopp parce que fi nit ñi tëlee foofu la mane. monsieur Seye la waaw monsieur Seye nag bi ñu ko arrêté vraiment ñun ñëpp dañoo amoon naqar parce que vraiment nit ku baax la nit ku serviable la nit kuy jàppale doomu aadama la donc te liggéey bii muy def nii. Euh, man dama ne liggéeyu état la moom état euh, lay liggéeyal te amu ci benn dërëm donc euh, place am du prison loolu daf ñu metti ñu ñëpp en dehors ci li muy liggéey ñun ñi mu dëkkal fii nit lu ko baax nit koo nga xamante ne ni problème mu nit ñi mooy problème am dafa mën a jàppale doomu aadama ci problème boo am da ciy taxaw yow xool nu mu lay mën a dimbalee ba nga ba nga retrouver wu. mais vraiment daal metti woon na metti woon na moom metti woon na bi mu génnee da ngay sentir ni kii nekkul. parce que ni mu meloon biñ koy bi biñ koy jël ak biñ koy indi bokkul. ñi war a dem prison demuñu prison moom miy jàppale doomu aadama yi di dimbali nit yi. Euh, di di di dimbali comme par exemple ñi nga xamante par exemple damay gis benn kii ci internet bi ñu wax ni ñi dem ci géej géej yooyu mais fii lay toog di liggéey ci loolu. donc loolu ma ne rôle lu état la voilà boo nga xamante ni nii amu ci benn dërëm loolu ba pare ñu jàppale dugal la prison loolu déception la ci ci ci wàll yu muy yëngu moom méritowul prison xam nga moom problème bi muy lijjanti su ko ci état jàppalewul ci mbirum yi ñu nekk sénégalais du du yomb du yomb da ciy dem ak euh, kii boppam moyen boppam waaw te loolu c'est pas facile waaw di dund noonu nag te amoo ci benn xaal ñu dugal la prison moom vraiment soxna si loolu dafa métti man daal li ma li may wax dëgg yàlla li may lancé appel mooy bu fekkee dañu soxla kuy liggéey réewam monsieur Seye moom nit la boo nga xam mi ngi liggéeyal te diaspora bi ñu fi nekk bëri na te moom diaspora bi yëpp amul fii amul itali amul France amul Espagne ci ñëpp lay taxaw ku mu dégg ne am nga problème mu di la ci taxaw donc nag vraiment je lance un monsieur président Diomaye Faye ak euh, monsieur le ministre Ousmane Sonko vraiment Monsieur Seye mérito na vraiment am place am. fii ci Sénégal. jërëjëf loolu yëpp di ay témoignages yoo xam ne rek ay jegeñaale la ay mbokk la ay xarit la waaye nag ay kilifa la ci ki nga xam ne rek mooy borom horizon sans frontières muy euh, tonton Boubacar Sèye ñu fàttali leen yéen ñi nga xam ne yéen ñu dab sur la 7TV seen émission 7 comme tous les mardis tey ñu dalal ko muy euh, Boubacar Sèye horizon sans frontières euh, doon rek li nga xam ne ba mu ko sosee léegi la woon 2006 euh, la woon 2013 euh, nag mu jëlee ko fële ci Espagne ñëw bu ko sant fii ci Sénégal euh, daal di rek tas ci Afrique bi yëpp mu am ci nag ay jafe-jafe yu bëri bëri bëri lu ci mel ni séjour carcéral moom la ñu nekk di expliquer noonu sànq ba tey ñu dund ci yoo xam ne yu metti la nga xam ne yow muy seetaan sax amaana sa xol dina ci xasan ndax ni nga xam ne mooy metti ci ci dund tonton bi nga génnee suivi bi naka la demee ak. sa doom ñi nga xam ne bi nga fa nekkee amaana boo tuuree rongoñ ñoom ñoo tax ak euh, yan épisode nga ñu mën a nettali maanaam ban bés mooy bés bi nga xam ne doo ko mos jour biñ euh, sa waa kër yëpp nañu yaa ngi ci prison bi. non moom franchement xamatuma fu ma nekk parce que la doon ragal. Mm-hmm. am na. mu tombeek ajjuma nag. ma war a woote pour pour il faut ma wax ak ñoom. ñu ne ma il faut ñu xaar tuuti julli jumaa parce que prison yi de prisonniers yi dañu julli jumaa. suñu paree après dinañ fexe ba buñ duggee ñu woote la mais boobu moo gën a métti sama sama àddina. parce que donc man j'étais. diggante xaar ñu julli non voilà oh am na benn instant sax imam bi ñëw naan ma yow rek la ñuy xaar pour nga julli ma ne ko franchement soo mënee bàyyi julli moom nga ma ni mën naa ko def. Mhm. forcé ba ma dem waaye la ma julli xaw ma ko. man man dem naa nit ñaa ngi julli rek waaye xaw ma lu ma julli boobu moo ci gënoon metti surtout ma fille comment elle ndax yëg na ko loolu doon sama problème léegi bi ñu la nee yëgu ko nag j'étais réagi ne ku góor ki moom du wax man sama doom bu góor bi bokk la ku jigéen ki mhm. moom xëy na su amee lu ko metti sax doo ko xam doo ko xam man ni ko non aw ma c'est-à-dire que man léegi sama problème mooy ñoom du ñu souffrir mhm. man xalaatoo sa bopp voilà donc euh, boobu jour bu metti woon la bon beneen bi aussi sama papa bi ma jur. jour bi may génn jour boobu nag laa nii euh, parce que sama papa boobu ba léegi dafa doon dëgër ba ma dem Cap Manuel ma dem ma dem fële. Euh, pavillon spécial pavillon spécial. le traitement bi ma amoon si téléphone yi bokkul. parce que maa ngi doog a ñëw ñële xam nañ ma dañ may defal traitement cheveux man du ma ràññ damay ñëw rek ñu jox ma téléphone léegi nag sama toog bu yeew day xaar ma dinaa toog ba foofu dafa am ay heure yu mën a woote du ma ko woo ba un jour moo dama laa dégg man ko non fii ma nekk nii xaw a changé jour nag laa mos a dégg sama papa jooy oh. te mu ngi a jooy sama kanam j'avais dix-huit du ma ko mos a fàtte moom j'ai vu moom léegi nag sama papa jooy ba ma sentir ko ci téléphone ñu ne ma ñetti fan yi ñu lekkul bi ma demee nag dugg ci néeg bi ma ni ma jooy ma ni ah man de yàlla comprendre ma man lii may dox nii bàyyi suma njaboot bàyyi suma lépp ñu may toroxal ñii nga seetaan mais bu fekkee li ñuy wax dëgg la fii waratuma fanaan xoolal 30 minutes après la génn. ci nga génn. 30 la ñuy ñëw ni ma jëlee sa ak génn. bi nga génnee ba gis sa papa ñu ko naka la xam nga man sama papa benn doomu góor la am. Mhm. man sama suñ kër ñëpp ay jigéen lañu. man benn doomu góor bon après ci lañ la expliqué lépp. léegi nag affaire bi bon comme papa rek xam nga doom moo fort. Mm-hmm. soo ko soo amee doom ngay xam doom moo fort sa doom mu ngi ci prison bi. Mm-hmm. bon beneen bi beneen sentiment de fierté bi mooy xëy na peut-être li ko doon soulager sa doom kat mu ngi ci prison mais rayu nit lekkul alalu nit. Mm-hmm. alors Sénégal bi di ko naqarlu ak yow. loolu sant yàlla nee na ma un jour damaa dem ci benn xew ñu ne kële mooy papa Boubacar Seye ñëpp jóg di ko tàccu. metti woon waaye. da ko soulagé voilà daf ko soulagé. Mm-hmm. beneen bi nag après ba ma génnee amul jàmm parce que tiit na buggatu ñu laal ma foo xalaatul rek ndeysaan dem na fa pour wutal ma ñaan ma ni ko boo nelee nga tëdd nelaw. ñu mm-hmm. kii kii suma laal te yàqu sa famille. ñu ne ñu ne ñu ne ko ne xaw ma kan lay ba pare nag l'Europe avait pris des dispositions parce que après y a les Européens qui se sont levés le Parlement européen s'est levé Européens yooyu mer gisoo gisoo bi ma bi ma ñëwee fii Macky Sall gisanteeg euh, Pedro Sanchez. Mm-hmm. Euh, ñu ne ko ñu ne ko mais yow Boubacar dañ ko tëj yëguloo ko Pedro Sanchez yëgu ko nee na man yëgu ma dañu tëj Boubacar espagnol yi mer. là mu ne ambassade bi fii communiqué ko parce que ñun suñu biir moo tax bu ñuy siis Sénégal dañu xamul ñun tubaab yi ay bokkuñu pour ñun ñoom ñu mooy siis fii ba naan Boubacar lii la la la mais ñu ne faale wu ñu parce que man ambassade bi dama fay dem ñu xam man nous avons une réunion des coopérants Espagnols ici en Afrique des coopérants européens chaque sept septembre ñu téye ma xam nga lu leen di ko wax est-ce que Boubacar yore na passeport espagnol c'est mesquin ñoom ñu ngi ak samay document yëpp mu suñu fa teg tànk loolu nag moo gën a mere Pedro Sanchez moo gën a mere espagnol yi Pedro Sanchez yógu ko moo tax dañoo mere amul lu ñu ko yekkul mhm. les les hollandais ñoo ba gën a défendre ak les allemands gisoo allemand moo njëkk a joxe rapport ni ni Boubacar li ñu wax sax tuuti na mhm. allemand yi ñoo njëkk a def loolu mais Espagne ba ma dëkk man nekk citoyen espagnol ñoom ñu dañoo seetaan donc pour wax na rek Sénégal nañu bàyyi di bunduxatal suñu doom yi naan dañoo am ay national nationalité pour dugg ci mm-hmm. loolu c'est loi de la migration may ñaan képp koo xam ni yaa ngi ci bitim réew gis nga actuellement l'Europe gis vers l'extrême boo amul nationalité ñoom ñëpp ils vont créer la condition de leur irrégularité pour dàq leen y a les élections européennes mm-hmm. l'extrême droite va gagner këyit da nga koy yore ko ñu bloqué nationalité moo li ci gën a na ku nekk que loi yi ñoo wax nekk fa yenn at yi di pay ñun dañu cotiser sécurité sociale ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. yenn at yi soo ko amee en Espagne ans man bi sama dix ans matériel laa dem man ma ni ma yow sa nationalité ngeen ne il faut nga ñëw si nit si ma dem war ko jëli du ma ko fàtte ça fait dix ans deux mille deux mille quatorze laa am naa nationalité ba tey jii ça fait dix ans mais loolu daf maa dëgëral man ci la may dox. Mm-hmm. donc loolu il faut que ñu jàppee man loo xam ñun boo ñu dee six. alors que dëkk yi ñu sax faale wuñu y problème. kon yaa ngi leen di ñaax daal ku ci amoon. non mais mais mais dafa dafa nekk yoon. ba xale yi fa juddoo gis naa ci kii élection yi on parlait de kii du national kii mais mais war na am des restrictions loi bu mu écraser say doom parce que xale yi juddoo bitim réew yëpp dañu nekk dañu am national par le droit du sol ñooñu dans 30 ans dañuy ñëw Sénégal ñu leen yéen nekku leen ay sénégalais. débat boobu nañ ko teg si suuf. Mm-hmm. xam nga étranger. ki sant Diop sant Sey papaam nekk fële kooku du étranger nañu xoolaat mbir mi Sénégal ñi ñoo ko bokk ba am na yoo xam ni vraiment dootu fi amati daal. jërëjëf tonton. mu doonoon loo xam ne am na solo. voilà voilà nga daal di tàggoo. waaw euh, daal di tamit wax ci euh, madame. tuuti naka la ko dundee ak. Euh, waaw mais sama waa kër comme ni ma ko waxee rek. Hmm. bon man c'est-à-dire que xam nga. wax ci sax dafay gisoo bugguma sax ñu xam yenn yi gisoo man sama waakar ba léegi am na loo xam ni dañ koy nëbb mhm. surtout ci pour xale yi mhm. parce que traumatisme la xam ne ñun xoolal ñun suñu euh, doom ñu bëgg ñu xam Afrique man man man ma am ñaari doom seen yaay nekk tubaab ma bëgg ñu xam Sénégal ci mais mais mais mu ne sama papa dañ ko tëjoon sama doom toog na benn jour ni ma droit laay def man sama doom mu ngi quatrième année mhm. euh, droit ak économie lay jàng mu ne ma suñ lay téyati lañ la téyatee fii ma ne ko non ne t'en fais pas mu ne ma dinaa m'achever du droit. Mhm. ma ne ko non tëddal nelaw xaw ma ku ñu téyati waaye du man. Mhm. donc tu vois xale yi dañuy tiit. dañuy tiit dañuy ragal Afrique dañuy bëgg suñu doom yi bëgg Afrique. Mhm. ndax sama sama waa kër bon beneen bi li may def nii neexu leen aussi parce que moi je suis man jàngalekatu université la professeur la. damay toog ba Charles ñu inscrire ma fenn wala ñëwal ñëwal dafa la mais lii laa gëm. léegi mënuñu comprendre kii li ñu gëm nii amuñu xaalis daf ñuy sonal mais dugg après moo tax mel ni dañ nga xam ne benn bu la ci nekk moo ko na met su ma ñëwee du ma may jàmm damay liggéey on m'appelle du Sénégal je des interviews souvent sama doom sax téléphone daf ma yo mënu ma nelaw <laughs> donc pour la ni alors c'était ma passion. Mm-hmm. li gënoon metti ci man bon problème feebar bi parce que tey comme ni ma ko waxee man samay garab amul Sénégal problème boobu laa am dama mm-hmm. dem sama médecin gis ma. Mm-hmm. prescrire na garab boo xam ne bi ma ñëwee fii amu fi mais gis nga xale bi fi nekkoon sànq Babacar wax na ko sax sànq. ñoom ay nit ñu baax la ñoom ñoo dem. ñoo koy toppatoo l'équivalent garab bi. man du ma fay en Europe su ma ñëwee fii damay fay léegi moom day toog ba saag moo may jëndal garab bi ndeysaan ci baaxam day toog ba saag ni ma dégguma la benn yoon nga woo ma garab woo ma ni ma garab bi su ma ko waxee man ko xaaral tuuti mu jënd mu ñëw jënd garab bi ñëw jox ma ndeysaan donc pour wax la ni euh, lii ma gëm la passion la la ma ko daf loo xaw ma ko benn sëriñ wax na ma ko nee na ma mission bi ngay dox gis nga bërki dem dama toog euh, doomu sëriñ falu mm-hmm. sëriñ Moutada woo ma fii seetaan ma télé di ma ñaanal le lendemain moom moo gaare oto sax ma yenn ji Touba. le lendemain Serigne Abdou Sakho gis nga mbasin bi moo ma ko may. Mm-hmm. samedi bi jotee ñu yóbbu ma euh, euh, ci laaye ni moo fii kii bi nekk fii Ngor. Mm-hmm. xunt ba. sëriñ bi xoolal tey moo toog ba si yàlla woo ma dim ndax sama histoire ñun lépp dañ ko jaar jaar la bu metti mais daf la voilà daf ma seen nit moo tax yàlla daf ma ci ubbil. Mm-hmm. ma xam ci ay nit ñu baax. tey lu ma soxla Sénégal xëy na gouvernement moo may xeex. Mhm. gouvernement Macky Sall keneen mais am na ñoo xam ni xanaa ñu bana xam soxlay Boubacar ñooñu mënuma leen lim Sénégal su ma génnoon fii léegi dañ may téye ma ñaanal. Mhm. loolu tamit sant yàlla la. Mhm. lii remercié aussi yéen presse bi sànq tamit nga xam ne rek war nga ko am pour euh, mën a. pour euh, liggéeyal Afrique. xam nga euh, dafa am benn année le gouvernement marocain invité ma. dama ko mus sa fàtte dama koy faral di wax gis nga bi ma egsi aéroport rek ma gis ñu jël sama sac benn benn gendarme daal di ñëw dafal ma lii ñu ñu dugal ma benn salle teg tapis rouge <laughs> génn jox hôtel garde corps oto chauffeur man ni leen est-ce que juumu leen ñu ne ma yow la xaar yow lañ doon xaar <laughs> Sénégal dafa lu ma lool mais si aéroport ñu tëj ma prison man damaa ñëw pour liggéey après gisoo fii ma toog fii nga toog nii des européens viennent pour sama seen thèse ci man lañ koy defee mm-hmm. Figaro moo fi ñëw bërki dem mu ne ma man j'ai pas compris yow toutes les réponses yow dañu ko jox Afrique moo waroon a teg benn pancarte jox la nga jiite ko parce que yow li nga liggéey Nations Unies c'est-à-dire que toi tu ma ñu jàppale ma bon bi du def comme ni ma Macky Sall def sinon bon je rentre parce que j'ai fait 12 ans parce que su ma ñibbi woon dañ naan na ñibbi na ñibbee Macky Sall am lu ko neex mhm. tëj naa ko prison sonal naa ko daw naa je réussis nit ñi xamaluñ ma dara. Mhm. xamuñu nu may dundee sama garab day jeex ak yeneen parce que liggéey la boo xam ni ma leen di liggéeyal ñoom jàppalewuñ ma boo pare di ma tëj prison. mais j'espère que avec le gouvernement pareil parce que je les ai donné quelques orientations stratégiques dans ce mhm. dossier migratoire là. Mhm. j'espère que dinañ ma déglu mais ni ñii dinañ ma traité comme ni ma Macky Sall traité. donc on on souhaiterait que. <laughs> am nañ yaakaar ñu jàppale ñu. ñu gën leen a jàppale ñoom parce que ñoom am na lu ñu mën. ñun lu ñu mënul waaye ñu nit am nañ lu ñu mën lu mënul te suñ ko defee organiser la migration comme ni ma leen ko waxee ci ay schéma Sénégal dootul lebati xaalis donc man vision stratégique boobu laa am pour l' Afrique et pour le mhm. Sénégal mhm. jërëjëf tonton ñu ngi lay jaajëfal merci Sonia xanaa vraiment di leen remercier pour cette émission mhm. euh, di leen sant aussi à travers vous toute la presse parce que damay wax ni le seul soutien que j'ai dans ce combat là c'est la presse sénégalaise et internationale le soutien a été sans faille du ma lim parce que yooyu ñëpp ñu ngi sax journalistes yi samay xarit lañu fii kon kon kon damay sant yàlla gisoo keroog bi gouvernement bi amee sax dama say damay gis ñu bëri dañ ah ñun kat dañoo foogoon nii yow la ñuy jox le dossier migratoire ñu si bëri ay journalistes ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax ci àddina bi fii man loolu yëpp yëg-yëg la ak yéene kon nit ñi man mënuma leen a mënuma leen a fay alors ñi fi ñëw témoigner tamit ku nekk ci yow rek am na fu ma jaar ak yow ak ñeneen sax ñu ma tuddul ak ñeneen ñu mu tuddul Aliou si Cissé Tamsir Ousmane Ba. le professeur Malick Ndiaye bi gaañu da doon def suñu invité otoom lay taal fi ñëw jël si ma. professeur Malick Ndiaye ma ko fay ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm leen. Mm. alors di sant Sénégal yëpp. di sant waa 7TV parce que mm. nag ça see une mention spéciale. Mm. parce que c'est une reconnaissance sociale moom ngeen ma defal tey. yéen xam nag li ngeen bëgg seen télévision bi may mun a ñoom ñëpp yàlla leen yàlla gën a yëkkati. li ngeen bëgg xam yàlla jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tonton Boubacar Seye muy borom horizon sans frontières euh, comme ni ma leen ko waxee rek ca njëlbeen ba mu sosoon ko ca 2006 2006 ak liggéey ba 2013 mu ñëw fi nga xam ne rek mooy ci réewam euh, waaye ñëw Afrique euh, pour daal di ko fiy tekk ba tey nag jafe-jafe yi bëri na ndax lam ca war a am maanaam ci reconnaissance amu ko waaye nag ñuy ñaan yal yàlla def dégg ak topp ci émission bi di wax ne rek gis ngeen li nga xam ne rek noonu la wax ne noonu la ko dundee muy séjour carcéral am muy lu métti métti métti ñu ko ci euh, ñaanal rek comme ni mu ko waxee daf cee jógee yëf yi daal di ubbeeku kon nag jaar-jaar day am yenn saa yi euh, mu doon jaar-jaar boo xam ne day métti mais après day indi lu neex ba tax na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom it di ko ñaanal lim ñu ñaanal yàlla na ko ñu koy dal <laughs> macha allah ma jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo tax liggéey bi yemb ku ci mel ni Pape Mendy ak Issa Pouye ci wàllu cadrage bi Lamine Mbengue ak ñi ci ginnaaw ginnaawam yëpp maa ngi leen di jaajëfal waa production Papis Mbaye Adama ñëpp ñi ci ginnaaw maa ngi leen di remercier bu baax a baax fàttewuma ñu nekk ci logistique bi euh, Serigne Sarr ak ki nga xam ne rek mooy euh, Perlo mi nga xam ne rek euh, moo tax ñu yegg si ba fii ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu seen émission 7 voix du sur la 7 TV ngeen mën ko am chaque mardi di wax ni rek lu mu lëndëm lëndëm nit ki lu mu wéet wéet lu mu nekk nekk ci jafe-jafe du mos a fàtte ginnaaw bu mu ñëwee yéen yëpp information divertissement lépp lépp fàttewuñ ñi nga xam ne ñoo wéet ci seen i nekk ba tax na dañ leen di gunge ci seen émission bi di 7 voix du cœur tey ñu dalaloon ko tonton Boubacar Seye bon horizon sans frontières di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox dig daje mardi incha allah ci beneen numéro 7 voix du cœur sur la 7 TV fi amane la jàngeen jëf merci beaucoup à vous.